bismillahi irrahmani irrahim <clears throat> wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiya allahu tabaaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim xam naa ci suba léegi gis ngeen ay euh, message yu joge ci ñun ñu ci fàttaliku suñu wayjur wu jigéen xam nga wax ci sa wayjur yombut waaye nag xaq tax budul woon li ngeen seq sax nga war a def li la yàlla wax rawatina ak nit muy way jur xam ne loo ko loo loo def rek doo mën a sax seen doo mën a seen dara ci pëndam waaw Alaaji Ibrahima Sakho da daan wax ne mbaax nee na lu muy baax-baax su yemee ci borom nee na mbaax googu mbaax gu bon la wolof di wax ne nit suñ ne ndax baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax waaye bu fekkee ne nag waxuma la mbokk yi waaye àdduna ñi ko xam ñëpp wax benn kàddu ak kooku baax na kooku baax na watab ca way ba way way ne ko fal yaalami thaqalaani fal yaalami thaqalaani anna xabibati ummi wa ruuxi safwatu niswaani waaw ku nekk am na ko bëgg waaye na àdduna ak àlaxira nit ak jinne xam ne ah man waxuma la kii laa bëgg waaye sama ruux sax moom la far waaw sama ruux sax moom la far bi fi jógee ñaar fukki at ak ñaar booba gën nañ di ndaw sama wayjur bu góor di alxaaja Aliyun Saaxo di suñu sëriñ di suñu lépp keroog laa mos a gis rongañam ci sama dund wa keroog laa mos a gis rongañam mu wax nag wax ju rëy mu ne fanweeri at a ngi nii bi ma ñàkkee sama ndey ak léegi waaye tey laa soog a yëg ni ñàkk naa ndey moo tax ma tudd qualité yooyu ci xasida marsiya bi ma defoon ci moom ala ardi niiliinin salaamun wa rahmatu kada barakaatu min ilahi wa rafatu li xayri nisaai alasri ummi ummi ya mariamin ladaa kër sëriñ faanan nafisati rawdatu biha faaqati al afaaq turbatu saalumin fa arwaxuna kullan li qabriki vidiyatu mazaayaaki laa tuxsaa wa maanaaki fawqahaa wa qadruki hal yadunuhu qadrun wa rutbatu fa aasiyatun sabran wa maryamuna zuhdan xadiijatuna nasran te lin nasra iffatu wa aishatun ilman wa sawdatuna xilman wa fatimatun fadlan ovil fil juudi barratu ma ne ca suuf su ñoo wax ñii leen xam nga Saalum dafa am ay gox dafa am ndukkumaan mooy Kaffrine nag li ko wër dafa am Rip mooy Nioro li ko wër dafa am Ndangaan mooy Kaolack ak li ko dafa am Laguem Ndofaan ak li dafa am Sabax Madina Sabax ak li wër wante dafa am ñii leen waaye ñii leen nag ñoom dañuy claim ne ñoom ñooy saalum saalum yi dëgg ñoom ñooy dëgg-dëgg faana faana yi waaw waaye ñëpp nag ca lañ bokk dëkk bu ñoo tuddee kër sëriñ kër sëriñ faana ndax yaayu ko ko sañci moo tudd faana fa la faatoo ñu denc ko fa Euh, balaa moo dem tàggoo waa ndakaaru yëpp kër gu mu dugg fa ndekete du dikkaat ah, ma tagg barab ba nag ma ko am na xabru bu ne bu ne ci yow boo xam ne ci la saalum ci la saalum ci la saalum nekkee sangu yeneen gox yi waaw ah, ah, ma ne ko mazaayaaki laa tuxsa wa maanaaki waaw say baax-baax eh, kenn du ko kenn mënu ko tëkk kenn mënu leen tëkk waaye sa mboot nag sa dëgg-dëgg moo gën a kawe parce que nit eh, yamuy muy muy def lëf la ci ki mu do moo tax li ngay def lu mu baax baax yow mi koy defe ko gën waaw ci laa nag a yu baax yooyu ne fa asiyatun sabran wa maryamuna zuhdan xadijatuna nasran talin nasra iffatu xam nga bu ñu demee kër yonantu sallallahu alayhi dañ fay fekk ndey xadija nga xam ne li mu dimbale yonantu ah, yaay rek ko mën a defal doom waaw yaay rek ko mën a defal doom mu mu wax moom góor gi ne ba mu ñàkkee yaay mat na fanweeri at waaye tey la soog a yëg ne ñàkk na yaay ma ne ko ah, kon yaay xadijatu ci kër yonantu ba sallallahu alayhi wa waaw ah, lépp yonantu bi am na jamono suñu suñu wayjur comme da daa tukki lu bari yàlla àtte Cheikh Tijani mi topp ci man judd aka abdallah mi nga xam ne suñu bàjjan ay daa ko jur ñoo maase juddoondoo ah soxna si yàlla dimbale wonna ko nag yàlla dimbale woon na ko ndax ah dafa daa yëngu ci wàllu économique moom wax nañ ni la ca war yépp moo ko def hadiya barkeloo ko waaw ba ko def hadiya barkeloo ko nga loolu boo ko boo ko jàngee foog nga fàttaliku ndey xadijatu karog bi ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne limaam yëpp yaa ko moom limaam yëpp yaa ko moom limaam yëpp yaa ko moom moo tax xadijatu naa nasran telin nasra ay wa sallam eh, ndey umu salamata nga xam ne bu yonantu daa dugg ci farata foog mu wax ak moom ndax xel mu rafet moo tax ci Xudaybiya ba yonantu sallallahu alayhi wa joxe ordre ñépp toog ndax xamuñu fu ñu jëm ndax dañu jaal mu dugg ci biir xaymaam ndeyu musalamata fekk ko fa ne ko gis nga boo boo bëggee xam ni nit ñi mel ci yow génnal rek nga woo sa watkat bi mu wat la ba noppee nga loj sa gëlëm boo koy def rek ñëpp def ko waaw naka la ko yonantu def rek ñëpp topp ci waaw ñëpp ci moo moo laajoon bés yonantu ñun lan lañ am lan lañ am ñun jigéen ñi lan lañ am parce que damaayir yi ci alxuraan yëpp ci góor ñi la dellu ci la yàlla wàccee innal muslimina wal muslimaat innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat lu mu tuddal góor tuddal ko jigéen moo tax ndey Aïcha sax su bëggaan a wax farata ak yonent daa seeti Umu Salamata daway seeti Umu Salamata ñi xam góor gi yëpp nag xam nga góor gi yàlla dafa def gannaaw ba mu jógee ci jàngum daaram comme doomu soxna mu der daara comme ni ko doomu soxna yëpp di defe wante nag dafa jàngoo nit li yonantu wax ni sallallahu alayhi wa li gën ci li nit di dunde mooy ñaq loxoom ñaq loxoom waaw moo moom daf da entretenir jaam ñi waaye nangul woon taalibe entretenir ko mooy alxaaji Ali ndax na mu yore ay toolam noonu la yore woon it ay commerce Oh, mbokk mu jaaxle ci moom ngay ñëw mbokk mu jaaxle mu mu ko nag ci sëriñam ba Sidi Ahmed Tidiane waaw ah, Sidi Ahmed Tidiane waaw ah, Sidi ah, yi nga xam ne ñoo daa dugg kër Cheikh Tidiane di entretenir jaamu yàlla yi kenn xamul na mu toll bés bu nekk te lil waarithi ma lil mawruth waaw gi nag bu ko gan dikkalee surtout mbokk bu ñëwee ci soxna si lay jaar bu waree dem tàggoo ba góor gi jox ko la mu ko jox dafa wàcc soxna si ne ko lum la jox mu fecci wan ko mu ne ko toogal ma dikk xam nga comme góor gi doomu ba doomu doomu najaayam lu ko neex mën na ko ko wax ndax góor gi ci boppam kër sëriñ gi nga xam ne fa la soxna si cosaano fa la jànge xam-xam gannaaw ga lañ ko lañ ko ko may xam nga kon yàgg nañ bu jógee bu ñëwee ci kaw ne ko ah, diw de li ko jox xam nga ne tuuti ne mu ne ko xiiw sama papa daan wax xay ni ko Saalum Saalum di waxee xiiw rek lay wax xiiw mook moom mook moom ba mu génne lu bari jox ko mu ne ko waaw kay waaw kay noonu la daan def kon nga gis boog euh, euh, position wu musalamata xaat sa waaw kenn kenn kenn gis loolu ñaata la la jox ñaata la la jox ñaata la la jox seetal loolu ñaata la la jox euh, wax naa ne foo fil juudi su dee ci tabe nag dangay foog ni mooy Zeynab bint Jahsh Zeynab bint Jahsh doomu bàjjenu yonantu la sallallahu alayhi wa sallam di soxnaam yàllaa ko ko may ca kaw asamaan moo tax mu ko daan damoo yonantu wax na ne bu ma fi jógee ki gën a gudd loxo ci yéen moo ma njëkk a fekk ci samay soxna nday Aïcha ne dañ doon natt suñu loxo yi pour xam kan a gën a guddule wante bi Zeynab faatoo la ñu xam ne moom la namm maanaam tabe la namm tabe ndax moo ñu gënoon tabe daa joxe rek a joxe rek soxna si nag Seyda Mariam Dramé comme daf daa def commerce cuuraay yi la ñoo jëlee jëdd barigo yi dafa daan jël di jox mbokk yi nekk Saalum ne la jaayal bu bare nga indi <laughs> te xam nga àll neexut defee bu nawet wàccee walla bu bés rafete ku ci ñëw ndakaaru daldi ne ah nangam de jaay na waaye ba ma jaayee nangam ak nangam feeñu na ma lii moo fi nekk bu ma lijjanti ko rek indi li ci des mu ne ah déedéet yaa ko moom yaa dama xamoon ne su ma la waxee ne sa alal la doo ko toppatoo waaye yaa ko moom bi commerce seetal bi commerce <laughs> xam nga yonentu sallallahu alayhi la dafa bokkoon ci tabeem jënd rek la daan def mos ta jaay yonentu bi mosul jaay xam nga buñ naan la moo yoroon ko bi sax may sëratu ak ñoom ñoo doon jaay waaye yonentu tabeem ëpp na ci muy waaw loolu sew-sew bu mot a bàyyi xel la yonentu bi mosul jaay waaw parce que kii jaay am na lu mu bëgg te yonent wi da bëggal rek la def waaye bëggut waaw la def waaw àdduna bëggu ci dara bëggal ko nit ñi la def moo tax mosul jaay mosul jaay waaw ak boppam mosul jaay waaw waaye soxna si commerce boo xam ne dangay jox nit marchandise pour mu jaay verse la bu ñëwee nga ne ko la ma la joxoon yaa ko moom la doon bañ wax ne yaa ko moom pour nga pour nga bañ ko toppatoo seetal bi les générosité seetal bi le tabe moom noonu la daa defee commerce waaw <laughs> la ilaha illallah la daa defee tabe waaw waaw ah, bu dee yitte nag ci jaamu yàlla yi eh, damay wax ni <laughs> ndey Aïchatu xam nga moo gënoon a xam médecine ci waa kër yonent ndax ku ñëw sallallahu alayhi wa ne danga ngaa ci yonent bi loo def ci kanamam bu pare mokkal na ko bu ko yonent bi soxlaati soxlaatul keneen bu dee xam-xam kenn melu ci woon ni moom moom ay Aïchatu moo xam xam-xamu xadis la wala xam-xamu askan ndax Aboubacar ay baayam te Aboubacar gënoon a xam-xam askanu askanu soo yi soxna si noonu la meloon ci biir famille ku ñëw rek dana lijjanti ba xam yaay kan ak lan nga bokk ak góor gi ak nan lañ la mën a toppatooy bu dee ci wàllu médecine nag <laughs> da nga ko daan mere sax ko daan mere nit bu gaañu xale la walla nangam bu dee damm moo laa dàmp moo nangam bu dee gaañu gaañu da ngay foog ne médecin la lu ne lay def waaw lu ne lay def lu lay def xam nga eh, feebar bi ko yóbbu almalawul ala mën nga wax ne ci loolu la ko jëlee ndax këram dafa meloon ni daycare xam nga daycare parce que booba ku feral rek moom ngay moom ngay indi jox ku feral rek moom nga indi jox ñu ngi am suñu rakk boo xam ne ñu ngi koy tuddee suñu caat lu tax mu tudd suñu caat ndax papaam dafa feebar nekk ca hôpitalu Kaolack soxna si dem fa seeti seeti ko ba demee fekk yaayu xale bi mooy yore góor gi moo koy toppatoo te mi ngeen namp xale bi amul sax ñaari weer mu nangu ko ci yaayam indi ko Dakar <laughs> booba dem na ba amatul amatul soow wante xale bu yuuxu mu jox la jox la weenam ba ween bi infecté waaw ba bi infecté ba loolu moo ko topp moo ko topp ba nim fiy pour wax la ni mu meloon ci sonnee soxla jaamu yàlla yi waaw ni mu meloon ci soxla eh, jaamu yàlla yële nag buñ koy wax eh, xëy na bu doon keneen it ñu wax ko ndax waxtaanee nañ fi soxna Awa Jaañ waxtaanee nañ fi alxaaji Waali eh, kon nag buñ koy wax xëy na war na ndax suñu way jur la ñu jaamu yàlla ci moom waaye li tax dëgg-dëgg ñu di ko waxtaane mooy ñu mën a xam ne am nañu ay ñu a xam ne am nañu ay royuwaay ba léegi eh, góor gi njang Fatma nekk tey di borom dëkk kër njang Fatma di suñu mëg eh, borom dëkk kër njang Fatma saaxu nga xam ne fa la ñu denc góor gi ca jumaa ja ndeysaan bokk na ci ñi góor gi njëkk a amee ba muy nekk kër sëriñ sax daf ko yóbbaale woon moo bàyyi ma bokk ndey ak bàyyi waaw nee na ma yaayaama lay wax yaayaama ah, ndax xam nga kër njàng boo demee ñoom bàjjan rek la bàjjan lañ ko wax sax nangam bàjjan bu <laughs> demee kër njàng bàjjan la ñoo wax waaw de mënuma ko fay mënuma ko fàtte mu booba bu leen góor gi joxaan liggéey sax moo xam muy liggéeyu tool wala nangam dañuy taw rek gis ko ca tool ya boo defee nee na bu sam papa yónnee ne ko yow loo man ci tool yi mu ne ah xam nga ne liñ leen sant mënuñu ko ma dimbale leen ah, ma dimbale leen ah ma dimbale leen noonu la meloon ci ñeme fitna ñeme liggéey ah, nangoo sonn nangoo sonn nangoo sonn nangoo sonn waaw ah, ba ni mu fiy moo tax ma ne aya ahla hadha aljili niswaana asrina lakunna dawaaman fi ajayama uswatu waaw waa jamono rawatina suñu jigéen ñi jamono su ngeen bëggee royukaay jarul sori waaw soxna sàngi soxna sàngi maanaa bu ñu xoolee ci suñu yaay rek xool ci suñu wayturi lu bari danañ ko mën waaw lu bari danañ ko mën waaw ah, lu bëri danañ ko mën sam papa bi mu fi joxee mi ngi ñuy dénk mu ne man de fi ngeen may gis ni yore lu ma kenn bor ah, nit ñee ma yoreel waaw ah, xam nga koo xam ne yaa ngi bay bokk ci baykat yi gën a mëg yore daara di def commerce bokk ci commerce saa yu gën a mëg te mosuloo am bor ndax mosuloo am prêt bancaire mosu ko am waaw ah, naar yi lu ne lañ ko daan proposé ci eh, eh, wàllu conteneur mu ne ah déedéet li ma am naa jënd rek li ci des ma bàyyi waaw ah, loolu lañ parce que boobu daf ma yónnee ma demal ko umra bi mu waroon mujj a dem ñibbisi mu yónnee ma faas Cheikhu Tidiane bi may yónnee nag may génn ci la ma woowaat maag Ousmane sama frère ñu toog keroog ci la dénkaane dénkaane yi ba ma ñibbisee ñetti fan la ci teg ah. ñetti fan la ci teg xam nga bu ñuy wax ngërmande jëkkër dafa yóbbu nit aljanna ngërmande gu mel nii tax waaw ngërmande goo xam ne ci ngërmande yàlla lay tegu waaw waaw waaye moom waxuma la daf ko gërëmoon waaye dawe ne moom de ñi fanweeri at ba mu ñàkkee ndey ak léegi waaye mi ko soog a yëg mi ngi ko bu bu woyof waaw ah, du du seede ah, ñaanal ko alayki min al mawla al karimi ridaa'u wa rawxun wa rayxaanun wa nuurun wa nicmatu wa jaarata ahmadin salaatun wa taslimun alayhi ah, ñaanal ko ngërmande ngërmande yàlla ñaanal ko aljanna ñaanal ko it mu waaw ñaanal ko it mu dëkkaale fa ak Mawlana Cheikh Tijaani radiyallahu anhu la góor ga wax ne waman bi abil abbasi yadxak waaw waman bi abil abbasi yadxak yowma laa tura laa tara illa bayna baakin wa daxiki waaw boo boo rek yem ci sidi sidi Cheikh Tijaani nee na kàng ga ngay def ndax kontaan ci bés boo xam ne ku fa newul kàng ndax kontaan rek yaa ngi ëk këj di jooy ndax jaaxle waaye boo yeewoo ci sa bàmmeel rek nee na yem ci abul abbas kàng ga ngay def ndax kontaan sa bët sa bëñ génn nee na nee na kàng googu yàlla bu waaw kon na kàng googu yàlla bu mu ump soxna yàlla mu ump wayjur yi jiitu yàlla bu mu ump eh, mbokk yi jiitu waaw yàlla boole koog seeni ñëmb Seydi Xaaja Ali Sakho yàlla boole moom waaw boole moom góor gu sell la woon wax dëgg yàlla xam naa eh, yi dafa mënta ñàkk yi dafa mënta ñàkk ndeysaan eh, moo tax xam nga wala dafay wax ku baax baay bari bàjjan waaye ku baax yi dangay ngay bari turandoo ndax man xaw ma ay turandoom nu ñu toll waaw foo jaar ñu ne ah, kii de sa lañ ko tuddee maa ngi koy maa ngi koy woy sax naan ko hiya mariamun hiya bintuha hiya ummuha hiya jaddatun li jamiiha filaani waaw la tudd doomam tudd Mariam ndeyam tudd ko sëtam yëpp tudd Mariam waaw <laughs> man mi am naa ñaari Mariam am naa Cheikha Mariam am naa Seyda Mariam <laughs> sama papa tuddee na ko samay frère yi ma bokkal papa mu ngi noonu doo xam ñaata nit ñoo ko tuddee doom loolu nag ah kenn du du ko lijjanti de waaw kenn du ko lijjanti de xam naa ne ah, mooy Eh, parti bu njëkk bi ñuy ñaan ngeen ñaanal ngeen ñaanalal ñu ko waaw ngeen ñaanalal ñu ko ngeen ñaanalal ñu ko yàlla may ko yërmandeem yàlla may ko aljanna yàlla may ko yërmande yàlla may ko aljanna ndax itamit liñ fi tudd yëpp kat eh, yërmande yàlla ko ëpp waaw yërmande yàlla ko ëpp yërmande yàlla ko ëpp ndeysaan jaamu yàlla gu bari gim fi doon def mbaax yiñ fi tudd yëpp yonentu waxoon nañu ne yërmande yàlla rek moo konte kon nag yàlla nañu ko yàlla yërëmal yàlla nañu ko yàlla yërëmal barakati alquran alkarim wa xurmati alxabibi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama